asalaamaaleykum mbokki Sénégal dew na ci leen bal nañu àq bal nañu àq yal na yàlla jëggal ñu fekkee ay déwén yu bëri mbokk yi euh, man la seen doomu ndey Barthélémy Dias yi ñëwaat tey ci les vidéos de Barthélémy l'officiel ñoo waxtaan si ak yéen ci euh, campagne électorale bu ñuy ñëw euh, am si ba jour élection yi le juillet. mbokk yi euh, fu may xanaa commencé rek mooy euh, sàkku ci mbokk yi ñu mën a xàmmee di mën a ràññee ndax euh, tànneef bi gën a yomb ci ñoom ñu yor nguur gi tey yor seen majorité mécanique fële ci assemblée nationale dañuy juum di jàllale dañ leen fa yónni woon ngir yaakaar ñu mën fa taxawal askan wi mën na fa waxal askan wi mën na gëstu askan wi ñu tas suñu yaakaar nekk ci assemblée bi di xuloo di saaga ak di xeex ak di trafiqué ay faux ak di jaay ay passeport diplomatique loolu euh, amul benn askan bu ko soxla ci représentation à l'assemblée nationale ñuy jum di parce que dañ leen fa yónni pour ñu nekkal fa askan wi ñu jaawale askan wi ak euh, président de la république te ñoom seen euh, taxawaay ci assemblée nationale noonu la tamit bokk ci ñuy gëstu di saytu euh, lii di gouvernement bi di liggéey ci assemblée nationale wante tey mbokk yu tax may sàkku ci yéen ngeen mën a xàmmee di mën a ràññee mbokk yi mooy foote tey Benno Bokk Yaakaar mooy jéem a taat Sénégal parce que su ngeen xoolee tey ci liste bu ñu proposé ñoom fii ci département de Dakar ak ci liste nationale bi di ngeen ci gis ay ñett ñu jotu ci yëkkati fi ay kàddu ne ñoom dina xeex pour que président Macky Sall mën a am troisième wax ci yëpp mooy troisième mandat troisième mandat bu yee fitna Sénégal dama ne troisième mandat ay bakkan dul jeex ñooy ñëw rot si te mën na ñàkk troisième mandat deret bu dul jeex mooy ñëw tuur si fii bi euh, Sénégal te mën na ñàkk kon nag mbokk yi lii di fulla lii di fayda lii di gëm Sénégal ak gëm ëllëgu Sénégal mooy voté euh, la liste Yewwi ak Wallu la liste Yewwi ak Wallu mbokk yi lu ñuy voté mooy une assemblée de rupture mën na taxawal askan wi mën a waxal askan wi mën na xeexal askan wi ci yar ak teggin ci jàmm salaam te tamit di contrôler l'action du gouvernement parce que mbokk yi euh, ñu fi yor tey nguur gi te yor sen majorité mécanique assemblée nationale waxu bu ñu leen lan mooy seen bilan ci treizième législature bi mooy législature bu commencé woon ci 2017 ñu jeexal ko ci 2022 ci année 2017 session 2016 2017 de loi yu ñu déposé projet de loi gouvernement bi moo indi assemblée député yi ñoom ñooy def ay proposition de loi ci projet de loi yi gouvernement bi indi na fa vingt sept projet de loi proposition de loi zéro daanaka la def ci kaw euh, table bureau assemblée nationale donc nombre de loi yu ñu adopté ci 2017 vingt sept la donc daanaka lu Macky Sall bëgg moom la assemblée nationale boobu bëggoon lu askan wi euh, euh, bëggoon namoon ci ñoom daanaka député yi amul benn proposition de loi bu ñu teg ci kaw table bi ci 2017 ci 2018 lu nguuru Macky Sall indi assemblée nationale ci ay projet de loi mi ngi toll ci 30 projet de loi lu proposition de loi et ay député nga doon ci portable bi mi ngi toll ci zéro donc ci année 2018 euh, euh, session 2017 2018 daanaka lépp lu Macky Sall indi assemblée nationale muy ci ay projet de loi muy 30 projet de loi voté nañ ko 30 projet de loi yi mooy le nombre de lois adopté ci année 2019 mooy session 2018 2019 daanaka gouvernement Macky Sall yónni nañu assemblée nationale lu toll ci 21 projets de loi euh, ci mbiru proposition de loi benn proposition de loi rek la ñu jot gis ci session 2018 euh, 2019 muy benn proposition de loi modification du règlement interne de l'Assemblée nationale donc ci. année boobu 2019 nombre de lois adoptées mooy 22 lois donc une fois de plus lu Macky bëgg moom la gars yi bëgg lu Macky euh, bëggul gars yi tamit bëgguñu ko ci année 2020 mooy session 2019 2020 Macky Sall yónnee na assemblée nationale lu toll ci 46 lois 46 lois ci proposition de loi benn rek dañ ci euh, gis ci comptable bureau assemblée te dañ ko mujjee bloqué mooy benn proposition de loi sur le permis à point donc. ci année 2020 daanaka ci gàttal nombre de lois adoptées 46 une fois de plus lu Macky Sall bëgg moom la assemblée nationale bëgg te loolu bu seen taxawaay année 2021 mooy session 2020 2021 Macky Sall yónnee na assemblée nationale lu toll ci 32 lois yu mu déposé ci 32 lois yooyu député yi def ci benn proposition de loi ñoom boobu tamit ñu bloqué ko mooy proposition de loi bu na woon criminaliser yëfu góor jigéen mais comme ñoom Macky Sall ñoom xamuñu ñoom gars yi fan la ñu taxaw donc loolu tamit dañ ko mujjee bloqué ci mbiru góor jigéen ñi waaw ah, yàlla may xolu mu ñoom ak góor jigéen bu ci des nag mbokk yi mooy di ngeen gis que ci année 2021 Macky Sall ah, yónnee na 32 lois assemblée nationale depuis tey adopté 32 lois donc lu Macky bëgg moom la gars yi bëgg année 2022 bi ah, Macky Sall yónnee na assemblée nationale 19 lois. nombre de propositions de loi ñaar la benn bi mooy création du conseil de quartier ou de village beneen bi mu nekkoon benn loi bu naroon modifier l' article du code de la presse daanaka lii mooy bilan wu assemblée nationale sortante mbokk yi ñoo ko déggandoor ñoo ko gisandoor mbokk yi lii du assemblée nationale assemblée nationale narul nekk benn comité wala benn section wala benn coordination wu APR wala benn mbokk baakaar kon nag mbokk yi ñu lu ñuy woote tey mooy une assemblée du peuple pour le peuple avec le peuple du ñu ay jaaykatu passeport diplomatique du ñu ay trafiquant de faux billets ànduñu tey ànduñu suba ak góor jigéen lu ñu tax a jóg mooy jéem a xool dund bi ñu wàññi ko ci réew mi euh, jàng bi ñu def ci suñu kéem kattan santé bi. man bokkoon naa ci député yu nekkoon ci mouvance présidentielle ci douzième législature jamono boobu ma nekkoon ci mouvance présidentielle man lanka bañ tëdd ci suuf bañ a voté budget euh, ministère de la santé parce que mënu moo nangu benn loi des finances rectificative ñu indi assemblée nationale lu toll ci quasiment deux cent vingt milliards yu naroon ñëw euh, euh, se greffer au budget d'origine ñu nekk ci deux cent et quelques milliards yooyu santé dañ koy compal benn onze milliards mooy pour yokk salaire yi mais ak présidence de la république dañ fay yokkaat beneen trente ba quarante milliards de fonds politiques ñun député lu ñu xam ci député lu ñu gëm ci député yi lu ñu namm ci député mooy député mën na sax ànd ak nguur wante am fulla am fayda am taxawaay wax nguur lii du priorité lii mooy priorité bi lii askan bi namm ko lii la askan bi namm kon nag mbokk yi foofu lañuy ñuy sàkku ci yéen ngeen di xàmmee ak di ràññee euh, mbokk yi nag lépp ngi seen loxo su ngeen juumee da ngeen foog ni élection bi amul solo ngeen toog seen kër na ngeen jàpp ni nekk que Macky Sall dina xuus ci troisième mandat te troisième mandat wax naa leen lan lay jur ci réew kon nag beneen bi tamit amoon na lu gars yi namoon. ci euh, lu ñu def nii lu ñu namoon ci lu ñu def nii mooy jéem a leen décourager parce que lu ngeen namoon gis ci yenn profil yi bu ñu dem assemblée nationale ñu éliminer leen ci liste bi ngeen daal di gën toog seen kër bu leen ko def parce que tey ku namoon gis Ousmane Sonko Déthié Fall Habib Sy Aïda Mbodj ku lim Dioum ngeen namoon gis ñooñu assemblée nationale ñu toogal leen fa comme des députés vous avez le pouvoir de faire d'eux des premiers ministres et des ministres de la république te lépp ngi seen loxo te c'est possible kon nag ñun waa Dakar nag foofu lay daanale mbokk yi juróom-ñaari député ñooy dem toogal askanu Dakar ci assemblée nationale ñoom nag ci seen juróom-ñaari tànneef daanaka daf ci am benn pomme de terre bu yàqu yaxet nëb ba xëy pomme de terre boobu suñ ko bëggee dugal ci beneen saako. mu ànd ak yeneen juróom benn pomme de terre yi daanaka saako bi yëpp day yàq te du ma fi tudd tur parce que am na ay tur jarul tudd kon nag na ngeen xool ñu fi nekkoon di wax di waxeet na ngeen xool ñu fi nekkoon tey démb di woy baaxu maam ñenn ñi tey ñu leen di saaga démb ñoom ñoo fi toogoon tey démb ñoo fi toogoon fii di nekk troisième mandat dañ ko doon a xeex Sénégal tey ñu toog di nekk troisième mandat di lañ xeex ba Macky jot si. kon yéen askanu Dakar am na ay profil am na ay xeetu doomu aadama noowu leen sax xalaat ñuy toogal askanu Dakar ci assemblée nationale parce que ñun askanu Dakar du ñu ay warkat du ñu ay jaam te tamit du ñu wax du ñu gëmut waa kon euh, mbokk yi daal euh, loolu laa bëggoon euh, baaxee askan wi di sàkku ci yéen nag na ngeen ñu waxal dëkkandoor yi njaboot yi ak mbokk yi élection yi le 31 juillet euh, lu ñuy woote daal mooy fulla mooy fayda mooy gëm yàlla ak gëm ëllëgu Sénégal kon nag euh, mbokk yi jërë ngeen jëf yàlla na yàlla xeet doon yi yàlla yàlla yokk jàmbaar ci Sénégal jërë ngeen jëf mbokk